daaw jég dama leen a wax ne xaadimu rasulillahi di maam Ahmad Bamba génnewul kenn tàll na loxoom ñëpp ngir bi muy ñaan dafa wax ni ixfir bi jaa i Moustapha li kulli man hëbbani li waj i saman yàlla jéggalal ci daraje rasulullahi képp koo xam ni sopp na mën sëriñ Tuubaa te cofeel ga di yàlla mu dellu saat wax ne ixfir li kulli man ilaya maala wa an yedde yi laa sax si maala jéggali jéggal itam képp ku méng jëm ci man di sama taalibe tey loxoy kooku it bu ci jëleeti dépense mooy joxe ak addiya googu ñaan yàlla nu ci yàlla boole nun ñëpp wa tabaarakallaahu xaadimu rasul boobu nag di sunu maam Cheikh Bamba dafa jógoon takku nag liggéeyali yàlla te nag ki wuti am ba andi yemul ak ki wuti ndax xamagul dina amam déet sëriñ Tuubaa nag la mu wuti woon yàlla jox nag mu andi ka ana nan la waxe dafa bind ne maraamiya yuxtiiniihi rabbun muxaddimun xadimun lahu mulkun awaa sarxa wal xarba nee na sama càkkutéef la ma taxoon a jóg dem naa ba ca ka yor jox na ma ka kooka kanamu ne rabbun buur bi mu xaddimun ki jëkk a jiitu tey jiitale loo ñeel na buur boobu mulkun ngor goo xam ni awaa làq na sarxa penku wal xarba ak saw kooku moo ma jox lii ma yor kon kenn mënu ca dara ñu ne ko waaw ba nga fa jeexalee nag mu ne booba ba ma koy tàmbu man xaadimu rasulaay li tax pakk bi dafa ñoŋ ba fi dugg a ñoŋ loo fi ñaan yàlla may na la kaa mën na la kaa may ngir pàkk bi ñoŋ na sëriñ bi nee na ba may jóg nag di tàggoo bi ma signalee sama dossier bii ba jox ma ko ma war a dellu siwaat nag e, dama ko ni moom yàlla nawaytu unaa ruja li tuuba bi isnihi aw daxtuhoo jismi wa aw daxtuhoo xalba léegi nag yow sunu boroom mi ma doon liggéeyal ak rasulillahi ba signal ngeen ma samay kayit ba delloloo ma léegi maa ngi bëgg a dellu nag Touba ci sa ndigal yow yàlla waaye nag bala maa dellu danaa la dénk sama ñaari yëf sunu borom ne maxanaa ban ak ban mu ne dénk naa la sama yaram aw daxtuhoo ji siñii bu ñu ma mën a dogeb reen bu ñu ma xaatim bu ma kenn fas wa aw daxtuhoo xal baa dénk naa la it sama xol lu ma waay def lu ma miti miti rek naa ko muñ te jéggal ko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 المؤمن خير ما هجر